waaw mi ngi noonu kooku mooy soxna Aida duñ def rek lu dul dugg waxtaan ak ci moom ah, ñu gis ni soxna si ah, tamxay des na 4 jours te Kounkandé moom fu mu jàpp ba léegi jàpp lu ci gën a jaaxal nit ñi sax ne da ko def entrée 50 000 ku daggul tikki 50 000 dugg seetaan nan ko ko gisee. waaw Kounkandé bu nekk étranger ñoo ko da ñoo ko gën a pare téeméeri ñu ngi ko taxaw di ko xaar xam nga sénégalais ñun man dama nekk ci programme mu fi mu ne nii. Euh, seet nag yi ma war a rey ndax bala ngaa dem di seetaani kuukaande dangay ngay togg say cere baaral ko moom du ñu déranger du ñu yàqal leen niñ ko daan dundee événement bi rek la ñuy ñaan suñu borom may ñu fekkee ak tal ndax ñun suñu at mu bees la suñu at mu bees mi nag yaakaar naa ni ñun du ñu toog ci suñu réew mi yàgg koo dund suñu mag ñu baax ñi ñaan fi benn étranger ñëw fii xam nga étranger dañoo ñëw di yëngal aka def seeni bêtises ñu leen ciy bàyyi ci kuukaande la ñuy fayee bêtises yëpp li ñëpp def ci kuukaande lañ koy fay ku ko ànd dina dund ñuus yu métti ñuus yu mësta ñuus dinañ ko ko ñuus man soxnaa yi dama sëñ Saliou te entrée gratuite la entrée bi dama koy yombal sénégalais yi def ko 500 francs entrée 500 francs te maa ngi koy ñuusee ji ca arène ba arène nationale. te wàllu xareeg wala bu ko bu ko xareeg bu ko xarul yëpp. non bu ko xaree dama koy ñuus bu ko xarul dama koy ñuus man li ma ko wax dafa clair te bis bi laay xaar ak date bi te xam nga ni bu boobaa am na ku koy tëgg. kan moo koy tëgg bu jour ba. bu boobaa faramarin bi laay woo. ki nekk ci xolu sénégalais yi sénégalais yi namm ko ki nga xam ne boolewul daraa ki wax ma ëpp waxam moom bu nit ñi di wax mu toog ci liggéey bi ci liggéey liggéey bi di ko liggéey liggéey bu mucc ayib di ko ñaanal fa fële mu nekk ci Abidjan yàlla na ko fa yàlla defal ndam ci barki seexul xaddim waaw ki nga xam ne moom jëfa ëpp waxam man moom man sama doom la te xam nga nag li ci li ci li ci doom li ci yaay mooy nekk ci doom li biteel bii xeeñ rek la kubéer giy xeeñ bu bis baa moom mu ñëw di tëgg tëgg fu nit ñi di bége Kounkandé teg ko entrée cent francs ma ñuus ko mu génn sunu réew ñibbi wax ji jeex. Ah. maa ngi woo mbëri di woo képp koo xam ne bokk nga ci réew mi ak xale yi rappeurs yi na ko ñëpp teewe si. waaw na ko ñëpp teewee si bu boobaa xam naa boobu moo gën a nekk loo xam ne moo gën a wóor waaw ay xar géej gi wóorut entre cinquante mille yëpp wóorut bi wóor moom mooy arène national na moom da kay xar cette fois te am mën na ko xar ba siin. ku ku bëgg a jàll jàll lool la wax de ba pare nee moom du ci génn parce que lu mu def nii lu mu wax da def ci kàttan yàlla. non mooy set news si rek set news si la gis xarul dara set news si rek la gis li ma gis rek la wax xam nga ni day wax gis ay di ko wax te ñi duñu comprendre jarul sénégalais di ci sonn nañu régler tam xarit gi ñaanalante yàlla xam nga ñu nekk suñu at mu bees préparé ko réew mi étranger duñu ko li mu fi doon am ci bësam jël na ko li ci des mooy ñuus ko mu ñibbi. incha allah. ak kooku soxna Aida gis nga lu mu wax noonu ci euh, euh, ci kande nee na na ko gaa yëpp xam ma préparé moom nee na moom bu paree moom day tëgg arène nationale fee woo Wally Seck ñu feete ko comme comme comme ni mu ko waxee bu ñu jógee foofu euh, soxna si gis nañ jamono ji paase sëy yi bari na gaa yi ngi takk naka nga ko gisee. sëy yu neex dëkk bi yëngu na coow li bari na kore naa ñuy bëgg a mais it nag sëy yu bees tàq dina ci am. sëy yu am mbégte sëy yu am bànneex sëy yoo xamante ne ni dinañ ko takk yàlla def ci ndox mu sedd guy nag sëy yoo xam ne ay njaboot yu góor dina ci bari ay seex sax dina ci feeñ waaw muy Amina Poté sëyam macha allah yàlla na ci yàlla def jàmm te dina am sëy bu neex a ngi noonu macha allah na ko Sénégalais yëpp ñaanal am na tawféex am nag yàgg. am seex wala. am na yàgg am nag tawféex xam nga dama ne ñoom ñett ñoo ñu sëy muy Aïda muy dadaa ñoom ñetti sëy yooyu yëpp seex dina ci am tey boo nee fenn la rek sama moroom ñi ci des dañuy mbubboo loolu ndax man la nii xaar dañuy toog ci internet bi di ma taaxirlu su ma nee xaar rek ñu ne hey léegi nag damay côté sama yëf waaw yëf sama yëf dama koy côté léegi damay njunju teg ku ci bëgg am lu leer su ma jëlee ci suuf ma leeralal la ko ndax sama lépp dafa am cote